global d'une manière globale ah sénégalais yi aussi war nañu defaraat seen jikko ci secteur yëpp ah soo ñëwee ci secteur pêche bi ki wax na fii la part des responsabilité des pêcheurs sénégalais tey soo demoon tey yara nga longer plage bi ba caaro yi ba tëngeñ si tu vois ñoom aussi lu ñuy pêcher je te dis c'est alarmant jën yu ndaw yi yu ngi naan xaw ma yuus yoos yoosu bi la ñuy pêcher y a des usines chinois yu nekk fii yoo xamante ne ils sont implanté implantés uniquement pour traitement. waa mais loolu dañ ko xeex. mais ñu bëri ñu commencé andi ay usine de farine de poisson ñu taxaw di ko xeex. même loolu responsabilité pêcheurs yi da cee bokk état bi mu ngi def ay géego pour éradiquer cela mais sénégalais yi war nañ ci aussi dugg ci sensibilisation bi ci xam ne lu ñuy pêcher la pêche illicite et irrégulière loolu dafa rey pêche bi ñoom ñoo ngi koy pratiquer les les les sénégalais soo jógee foofu noonu nga ñëw une usine de farine ñëw ñu ne la usine bi jën yu ndaw yi rek lay jël ñu bàyyi ko ñoom ñu koy pêcher di utiliser les filets de pêche yoo xamante ne c'est pas réglementé. mais usine de farine de poisson boobu kan moo koy mën am kan moo koy jox agrément. damay ñëw la responsabilité de l'État kenn mënu koo génne loolu génne foofu ça je le dis clairement ah de pêche yu ñuy utiliser ah même ku xamul pes kii tey soo ko yóbboo mu xool file bi ñu yëkkati ko nii mu xool ko dina xam ne bii du épargner benn benn juvénile du épargner benn jën lu mu daje lu ne dana ko yóbbaale loolu loolu ça c'est ça la surexploitation des produits halieutiques day rëy géej géej gi dañ ko sëf loo xamante ne attanu ko ci wax na fi population bi début parce que la population augmente donc il y a il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement ci loolu pour au moins aussi pes bi mun ko kii parce que léegi pes bi ñu ci dugg dafa bari lu muy employé ki ay ay ay personnes de wax nga fi deux millions ëpp na ko dafa bari donc sénégalais yi aussi bokk nañ ci luy rey géej gi les pêcheurs sénégalais war nañ xool xam ne ils contribuent activement à, à cette rarification les licences de pêche comme li nga wax noonu yuy octroyer les chinois aussi la pêche don utilisent les bateaux chinois dañ ko war a seetaat tey soo demoon tey débarquement léegi au port tu vois nga xool yeneen jën yu ñu yu ñuy débarqué nga xotti carton bi les inspecteurs de pêche su ñu defee seen liggéey normal dañ koy saisir warul jàll mais xoolal y a tellement de laisser aller. le gouvernement fait des efforts mais war na gën a mettre mais effort ci ban boor ci vraiment la. kii li mu wax li mu wax. mais effort ci ban boor am na ñu nga xamante ni ñu ngi def nag sulu noonu mais dafa am ñu leen di dooleel fii ci réew mi. xam nga man yooyu du ma dugg ci ñu leen dooleel ñoo xamante ne xaw ma ñan leen leen dooleel je vais pas rentrer dans ces détails lan la sénégalais ñooy xam ne lii mooy yàq pêche bi nañ ci jóg wax ko état bi di